ñu ngi am te dalal euh, monsieur Farba Senghor njiitu parti de libéraux républicains mbooloo askan wi ci matinalu tey bi ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm. waaw maa lay nuyu euh, di nuyu ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu ci biir réew mi ak si bitim réew mi yëpp. alors ñu tàmbalee ak wàllu politique euh, lu musul am moo am tey élection législative ñu dëgmal liste national suppléante bu benn dañ ko rejeté liste national titulaire bu Yewwi aussi ñu rejeté ko euh, yow yan élection nga jàpp ne ci la ñu jëm nii ndax yëfii du jaxasoo. su fekkee ne dañoo ne élection moom carte moo koy joxe carte mooy tax nga gagné ko ak li nga xam ne moom la loi bi wax ñu ak euh, instance yi nga xam ne ñoo koy ñoo koy taxaw su ñëpp toppee loolu. dañu dem ci élection mais su fekkee nag dañoo bëgg euh, nit ñi ñu tiital nit ñi utiliser violence euh, xartal nit ñi pour bëgg ñoom au lieu ñu topp yoon ah ñu tiital nit ñi ba ñu topp lañu bëgg su boobaa mbir mi euh, mun na am ay trouble ci ci dëkk bi mais loolu état du Sénégal dafa war a taxaw taxawu état état warta nangu kenn nga nekk au-dessus de lui nekk ci bopp état parce que suñ demee rek ba nga xam ne nit mën na tiital état ba état lu mu bëggoon def mu def arrière mu bàyyi ko su boobaa réew mi day day day day dugg ci yoon boo xam ne du gën ci ñi nga xam ne ñoo fi dëkk alors euh, Yewwi wi a manifester juróom-ñetti fanweer bi ñu dëgmal euh, jàpp na nga ne war nañu ko autoriser wala da euh, foog ni mën na yee na damaa jàpp ne Yewwi waruñu yeew Sénégalais yi ndax Ousmane Sonko da koo mosoon mu neex événement mars yi fi amoon en deux mille deux mille la woon wala deux mille vingt et un deux mille vingt ou deux mille vingt et un. deux mille vingt et un dafa ne xale yi na leen jaral seen bakkan. dañ ne ko yow dañ lay jiiñ ne eh, danga nga doon yekkataan nit nañ dem ñu àtte la fañ la war a àttee ci kanam juge bi mu xam ne su yaakaar ne su demee foofu mënu fa am ndam mu ne xale yi na leen jaral seen bakkan xirtal leen ba fukki xaleel ak ñeent dee ci ñoo ngi tey seen njaboot gisuñu kenn ku leen taxaw am kër yu bari yoo xam ne ak ay bien yoo xam ne yooyu ay nit ñoo ko liggéey ñàq ko loolu ñu yàq ko am loo xam ne réew mi ñoo ko moom ñëpp bokk ko ñu saccagé loolu yàq ko am ñoo xam ne amoon nañ fu ñu doon liggéey di sutural sur seen njaboot ñu yàq loolu ba loo ba boobu ba léegi mbir mi ngi taxaw Ousmane Sonko nag dafa yaakaar ne loolu xiix xeex xeexaan googu mu defoon war na ko mën a defaat moom la bëgg mu yóbbaale si ñeneen ñi nga xam ne ñoom la àndal. pour que état bi reculer mais dama ne état warta reculer na état bi am taxawaayu état parce que ñun sénégalais yi ak population bi ki sécurité bi ci état bi lañ ko laaj te sénégalais itam waruñu nangu ñu di leen dugal ci loo xam ne ku def sa njombe bopp yaa ko war a assumer à cent pour cent mais lu def sa njombe bopp ba pare waññeeku bugg sénégalais yi assumer ko donc na bi am taxaw bu mu taxaw euh, bu kenn nangu tam yow ñu di la dugal ci loolu parce que ñu ci dee woon dañoo per kon manifestation bi danga jàpp nañ ko war a tere. non su fekkee ne ñi nga xam ne ñooy autorité yi ak ña ko war a tere gis nañu ni lii ëllëg mën na indi ay trouble parce que ñoom Ousmane Ousmane Sonko ak ñi mu àndal trouble la ñu bëgg mu indi ba affaire taxaw su fekkee ne yaakaar nañ ko nañ ko arrêté fexe ba manifestation bi nañ ko tere su fekkee ne ñoo xam nañ nag mën nañ ko dékku attan nañ ko ah xëyrul ñoom ñu def ko parce que loolu man du sama du man maay àtte lu ñu war a tere. ak lu ñu war a tere mais daal li may li li may li may bañ daal mooy benn nit taxaw fële tiital sénégalais yi ba lu mu bëgg am ko te fekk am na ñoo xam ne ñoo ko gën a yeey te ñooñu mënuñu am loolu parce que ñoom dañu tiitalaate parce que yoonu Ousmane Sonko doctrine am c'est la doctrine de la violence contrairement à Ablaye ne man du ma dem mukk di jaar ci ay niiw pour jël réew mi mais moom na leen jëlal seen bakkan pour man kenn du ma àtte même suñ ma jiiñee yàkkataan que man ah la ma bëgg dama koy am même su fekkee ne ba may defar liste yi reconnaître naa ne liste yi ñu yi ma defar list yi baaxul parce que man Sonko xam na ne moom wax na ñoom moom wax na mu ne ñoom ñoo juum lañ waroon def defuñu ko pour pourquoi ñoom ñu juum ba pare bugg dugal ay ci biir Sénégalais yi Sénégalais yi bu ko nangu kenn waru ko nangu. léegi ñu wax ci Benno dégg naa ni foofu am na ay euh, mer ak ñàkk gis sa bopp xëy na ci investiture yi est-ce que yéen loolu bokk ngeen ci. bon ñun ñun ñun xam ne mooy mbooloo askan wi ñun bokkuñu ci loolu ndaxte ñun dañuy ànd ak bennoo pour dimbale jàppale président de la République accompagner président ba mandat bi nga xam ne yàlla teg na ci loxoom mu dem ba mandat bi jeex parce que gis ne républicain la. suñ suñu doctrine doctrine lay Wade la lépp lu Ablaye Wade sumboon ah moom moom mu ngi koy def loolu moom moo tax ñun ba ñuy njëkkee dajeek président bi président Macky Sall pour jàppale ko dañ ko ne ñun ñun soxlawuñu ay poste soxlawuñu ëllëg nga dañuy jël di ñu dugal fenn ñun dañoo yëg bugg a yëg suñu bopp ci li ngay liggéey ñu ànd jàppale la donc 2017 dem nañ élection législative ñun ñoo def suñu liste bopp lañ yoroon. am ñu ne wey sax waxoon sax Macky dañ leen jàppale bi ñu ñëwee élection locale yi passé dañ jàkkaarloo ak président bi ne ko yow tabal ku la neex waaye ñun tam fu ñu bugg a nekk dem dafa kan dañu fay def candidat on a eu de candidats un peu partout donc loolu man candidat laa woon te teewul maa ngi continuer di ànd ak président ba ñuy joxe dossier itam man ak ñeneen joxe wuñu suñu dossier parce que ñun dañ ne ànduñoo ak Macky ah di di xëccoo ak moom ah naan ko ñun dugal ñu fi diñ ko duñ rus nañu taxaw di ko ñaan naan ko dugal ñu fii wala wala jox ñu fële et ñun ba ñuy dem mun ne ah yéen a ngi dem élection locale waaye su beneen yoonee day su may dem élection législative ku bëgg ànd ak man soo demee locale na nga assumer ses responsabilités su ëllëgee bul ñëw taxaw di ma laaj naan da ngaa bëgg a nekk député ñu ne ko ñun su ñu nekk député ñoo koy jox suñu bopp donc ñun bàyyi bàyyi ñu ñu dem. def sunu élection bopp ñu dem leen def seen élection ñu def sunu élection kon nag sunu ngor mayuñu ñuy ñëwaat di indi dossier si ñun ñëpp di ko déposer pour fu ñu dugal. mais est-ce que yéen bennoo ngeen dëgg-dëgg ak waa bennoo. non bennoo nañu parce que li ñu fa yóbbu mooy jàppale président parce que bennoo dafa yaatu de bennoo am na ay communiste bennoo am na ay socialiste bennoo am na ay libéro comme ñun am na ay libéraux yoo xam ne sa ñu obédience am na ay maoïste am na ñoo xam ne c'est des simples religieux am na ñoo xam ne ñoom bokkuñu fenn gëmuñu gëmuñu ñun li ñu gëm donc Benno c'est un melting pot mais dafa am lu ñu boolante mooy ñun ñëpp dañu gis président Macky Sall li muy liggéey ñu xam ne lii réew mi ngi dox te dañ ko war a jàppale ba mandaam jeex su mandaam jeexee nag kenn ku nekk nag su la neexee nag nga jaar sa yoonu bopp donc ñun euh, on se sent bien on est dans le Benno c'est-à-dire que ce qui nous réunit ñun moo ëpp doole. li nga xam ne moom moo ñu diviser ñu waa Bennoo. d'accord waaw a nekk ci majorité bi tey euh, réew mi ñàkk kaaraange ba nit ñu bari tiit lan nga jàpp ne xëy na loolu la état waroon a def te defu ko wala fan la mbir mi sooxee ak lu ciy saafara. man dama jàpp ne insécurité bi xew ci réew mi du problème mu état rek nit ñi tam am nañ ci wàll ak comportement yi ndaxte kuy liggéey comme li xew Pikine kooku doon liggéey ci. xaw ma. multi service boo mënoon liggéey. mu tëju ak collègue bu jigéen kooku xalaatul dara kenn fekkewu ko mu jël dóor ko dëbb ko fanweeri xawa ma paaka ak juróom-ñaar ak koo xam ne wax ak papaam ba ci yàgg mu jam papa mu dee. ak koo xam ne dafa nekkoon ci benn atelier di waxtaan euh, di xuloo ak moroom bi ci cent franc nañ jënd lii ki ne ko lii laay jënd mu jam ko mu dee. ak koo xam ne cigarette la doon xëccoo ak morom ba jam ko mu dee ci biir kër gi ak ku tëdd nekk sa jabar ba guddi ngeen xeex ngeen reyante mais dama ne loolu état mënul ci loolu dara loolu ci éducation la saa dañu bàyyi ay éducation bu bon muy law ba egg foo xam ne loolu état mënul ci dara donc état mënul ci loolu dara donc dafa am loo xam ne nit ñi seen bopp société bi ñoo war a toog ñu def seen ndëpp ñu xoolaat nu ñuy def ba problème yooyu ñu réglé ko mais nag. terewul ne état am na responsabilité qui sécurité des biens à des war nañu jox gendarmerie ak police compte de la nouvelle situation mooy yoo xam ne war nañ ko ne muy ay jumtuwaay pour ñu mën a xeex drogue ñu mën a xeex lu bon li am ci réew mi yépp ñoo ñu mën koo xeex ñu mën a xeex insécurité bi war nañ aussi di xool def ay plan di étudier di xool fan lañ war a jaar quelle stratégie lañ war a jaar ba def lii ñëpp war nañ ci impliqué wu que ce soit muy mairie yi muy chef de quartier yi muy borom kër yi ñu jéem a yaraat seen doom yi donc le problème état problème mu ñëpp la fi mu toll situation bi egg na foo xam ne dañuy dem ba mu nekk à la brésilienne wala à la mexicaine ku jóg nit war laa mën a rey donc bu ñu bu dafay yomb rek Sénégal yi wax mu ne woy état état état état ah tobb envers nous lynx envers les autres comme ni ko Fontaine la fable di wax lépp loo xam ne daal mu ñun mi ngi si ñun muy la bon dañuy gëmm kenn du ko nangoo gis mais lu bon li nekk si ñeneen ñi rekk la ñuy gis fi mu toll fu dara xewoon sa dëkkandoo su defee soo defee dara sa dëkkandoo dara yow doodoo gis li nga def li sa dëkkandoo def ngay gis yow su dara xewee doo xool société bi lan moo responsabilité am mais da ngay indexé état bi ne état war na def nangam nañu bàyyi loolu nañu fexe ba ni ñëpp ku nekk assumer sa responsabilité man noonu laa gisee mbir mi c'est un problème de responsabilité de sens de responsabilité c'est de maturité intellectuelle ku nekk war nga xalaat nga xam lu baax ak lu bon alors yoroon nga fi wàllu mbay euh, yoroon itam programme boo xam ni fexe ba réew mi mën a moom boppam ci li muy dundee loolu la doon jublo tey euh, ñu nekk ci jafe-jafe yu mel noonu ñàkkum kaaraange ci wàllu lekk moom kenn dootu ko natable ndax président Macky Sall sol na daalam dem ba Russie ngir bëgg ñu euh, ubbi blé bi ak lépp luy céréales Afrique mën caa jot ngir jënd ci marché bi. alors programme bi ngeen tàmbali woon dafa doxul ndax président Macky Sall ngi koy mottali wala lan moo tax daal fi ni Afrique daal ba tey mënta fexe ba moom boppam ci wàllu li muy Macky Sall vraiment li fi Ablaye Wade sumboon yëpp def na ko ba def lu ko romb loolu moom Sénégal yëpp xam nañ ko donc vraiment nit nag mënta matal yëpp parce que ñun pays bu ndaw lañ li ko Ablaye Wade doon wax gab yi pax yi yi war a suul bëri na bëri goo xam ne mënoo defaloo yëpp parce que doo am moyen pour def ko te dañuy war a xeex am ay moyens war a xeex pour am xam am xel moo xam ne dana may moyens yooyu ñu liggéey ko war a xeex itam ak habitude nit ñi nga xam ne ñii dañ man du ma lekk nangam lii laay lekk la ma daan lekk laay lekk tout ça dafay nekk problème yoo xam ne lu lu yombul mais soo gisee situation mondiale la. Euh, war naa danaa wax rek ci benn télévision barki démb bu ma ne euh, soo demee Europe alors inflation dem na huit virgule un pour cent c'est-à-dire téeméer loo jar téeméer léegi mi ngi jar cent huit dem am na pays yoo xam France soo demee sax am na produit yoo xam ne ñu ngi à à cent dix sept pour cent ñi ngi à dix sept pour cent d'augmentation. sàkkaatuma nag léegi ñun ñi nga xam ne ñun Sénégal doo am na loo xam ne ça ne dépend pas de nou euh, et puis gis nga monde bi depuis trois siècles dañ ko plus de deux siècles dañ ko diviser en zone de production am na ñoo xam ne ñoo féete woo bay ceeb am na ñoo xam ne ñoo féete woo bay blé blé bi pays européens yi ils ont le même ñoom ñoom situation pays tempéré lañ pays boo xam ne nangu na blé te te ñu ngi ci situation bi mais la division du monde fii la ñuy béyee blé fii la ñuy béyee orge euh, fii la ñuy béyee maïs fii la ñuy béyee tel ou céréale moo tax léegi kenn ku nekk la nga tàmmoon di ko bay ci ngay concentré wu ci nga nekk donc su amee insécurité ci fu mel ni Ukraine ak Russie yi nga xam ne 30 pour cent des exportations mondiales ñoo ko doon assuré ak ci domaine ci domaine boobu mais ñooñu ñoo duñ su amee bloc su amee suñ bloqué production bi suñ bloqué. Euh, euh, génne foofu marchandise yi mais situation bi nekk ci la nekk donc situation la boo xam ne li président Macky Sall def loolu moom laa gis dem wax ak Russie ne ko ah lii ngay def nii kat ñun am na foo xam ne daf ñuy gaañ ndax ay réew yu ndaw lañu yoo xam ne ñun blé bi mënuñoo ñàkk lekk mburu ak lim mu àndal yépp ak farine ñun de dañoo soxla pétrole ñun dañuy soxla dañuy soxla gaz alors ñun dañuy soxla engrais. dañuy soxla engrais mais kon fexeel ba ubbil ñu yoon boo xam ne ñun daañ mën a jot loolu en tant que en tant que pays africain je crois que loolu moom mooy moom mooy solution bi mais ku la wax ne la damay dem bayi fii euh, blé foofu zone tempérée lañ koy bay Sénégal kenn mënu ko fee bay. mais bu dul bële yeneen yi te am na sax ay experts yu wax ni fii am na fu fi mën a defee bële xëy na loolu beneen waxtaan la mais est-ce que jotul tamit yeneen yi ñu mën caa xëy na wut ay alternative ba dootuñu dépendre nii si ñeneen. non parce que loolu dama la wax naa ne ci départ bu ne la am na benn boo xam problème lekk la ni ki dafay tàmbaleeg fii Pami Blay maa ngi rappelé 1976 première norme sénégalaise bi ah euh, institut sénégalais de normalisation man defoon naa étude ci loolu. Euh, même son première euh, mémoire ci loolu la woon pami blé la mais ba léegi kenn du fi lekk mburu mburu kii mburu pain pami blé mooy pain mi blé li si des euh, mil la mais dugub mais gars yi nanguwuñ ko ba léegi donc ay un problème boo xam ne problème habitude habitude bu Sénégal yi deuxièmement également mais sénégal yi am na loo xam ne ñu ngi koy def mais jaarawul fi mu toll nii aliment de bétail yi man dama koy jël toujours pour sama xar yi am na saa yoo xam ne soo ko ubbee xam nga lu si nekk tourteau moo si nekk bu gerte euh, leneen li maïs moo si nekk mooy mboq boo xam ne Sénégal dañ ko bayee leneen li euh, sorgho moo ci ëpp moo ci nekk yeneen yi ay ñebe ñoo ci nekk. te loolu yëpp am na fi. am na fi waaye dañuy profité wu ci situation bi ñun saag bi ñoo set 7000 waxtu wi daaw léegi mi ngi ci 12 à mille parce que tout simplement dégg nañu ne Ukraine alors am na problème ñu àll est-ce que loolu yoon la donc am na loo xam ne. doomu aadama waru ko teg boppam donc dañuy wax état bi état bi mais lu bëri ci nit ñi la moo tax ma ne la Sénégal dañ am ñaari défi un défi instrumental mooy expertise yeeg xam-xam yeeg matériel bi ñu war a am ak procédure yeeg yooyu mais dafa am beneen boo xam ne nit ñi la c'est-à-dire di comportement nit ñi la comportement nit ñi nag kooku état mënu ko dara man mënu ko dara yow mënoo ko dara il faut que nit ñi jël conscience u am na loo xam ne ñoom ñu war a am taxawaay boobu mais yow foo mën a reyee sa morom foo mën a nga rey ko muy insécurité foo mën a naxee sa morom ni nga def fraude nga indi lu bon indi drogue jaay ko ci dëkk bi wala nga indi yàmba ah wala nga jël lu ñu war a jar cent franc nga dem jaay teg ci cent dix parce que dégg nga ne yokk na ci beneen dëkk mais loolu problème de problème de comportement la ah loolu du problème mu état état mënul ci loolu dara ku ñu rey sa biir kër itam état mënul ci loolu dara parce que yéen foofa police mu du fa taxaw police ku police tey dugg sa biir kër ñaari yoon ñetti yoon mu ne dafa dégg luy wax nga ne ko génneel sama kër fii sama kër la mais bés bu fa nit dee dañuy gaaw police kaay ñëwal nga ñëw ñu ne waaye état bi ah loolu lan la ci police man donc am na loo xam ne ci nit ñi la na nit ñi seetaat seen jikko na nit ñi seetaat ni ñuy ni ñuy ni ñuy doxalee seen àdduna suñ bëggee régler problème yi mais état bi moom vraiment l'état a bon dos. jërëjëf monsieur le ministre Farba Senghor amoon nañu mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM. waaw jërëjëf maa gërëm bu baax la sant. vraiment sa liggéey rafet na ak sa liggéeyu organe de presse bi muy réew mi FM ñu ngi gërëm itam Sénégal yi ñu doon déglu yëpp ak ñi ñuy déglu ci biir réew mi ak ci bitim réew mi jërëjëf